Chérif yenn kaay ak la ñu xëyee ñu doore ko ak l'observateur l'observateur lañ koy tàmbalee soxna Fatou ginnaaw bi nuy waxte mbokk yi gis nga ko ñëwaat rek ci débat bi mbiram góor jigéen dafa mel ni président assemblée nationale Moustapha Niass yokk na ci xar mi karaw ndax am na ay termes yu utilisé ci lettre bi mu jagleeloon député yi déposé woon proposition de loi bi ambiguïté maanaam dara leeru ci daal la ca lëndëm nag moom moo tax xëy na coow li gën a bëri boo taxul nag kon yooyee député dina saisir conseil constitutionnel ñaawlu ni biir assemblée nationale dàqee boobu proposition de loi beneen président institution que ñëkk ci ñoom sax mooy Macky Sall la nga ni kon ma ngay manœuvrer ndax course contre la montre la nekk fii ak législative ndax dana am ci àpp ba bu bëggee am majorité ci assemblée nationale journal bi daal dina ci ñëwaat di l'observateur et puis jéye xew ci yëmbal muy kii soxna si moom nag dafa faat magam ndax wuju peccoor goo moo indi jo coow la mu nga ci la muy loo xamante ni lu doy waar la et puis histoire boo xamante ni bu yéeme la moom it kii nekkoon fi capitaine équipe nationale bu Sénégal di Cheikhou Kouyaté gis nga fan yi nag daanaka moo nekk ah, dugal na bit am taxawaay bu am solo ci match yi nga xamante ne jot na ko joué ci CAN bi moom Cheikhou Kouyaté gars yi jàppoon na jeexal na moom borom ñaari soxna yi kon gis nga ko mi ngi Euh, célibataire yi sax daanaka moo leen mën ci terrain. enquête gis nga ko daal ñëwaat ba léegi rek ci école bi ak tamit en ébullition dafa mel ni kon jax na fii ci Sénégal li ko waral nag mooy syndicat enseignant yi ñoo bank seen i yoxo gone yi tamit fekk leen daanaka Sénégal kon jàng amu fi ba tax na kon li ko waral nag mooy respect des accords ñëw kon ci révision système de rémunération bi nga xamante ni ñoom syndicat yi bëgg nañ rek ñu daal di koy saafara et puis tamit indemnité bi nga xam ne jox tamit les inspecteurs jëm kon ci 400 francs g moo saaganul kon manquement yooyu rek tax na kon ñoo rek ñu sàkku ci gouvernement bu daal di respecté yu ni mel et puis euh, suñu nationale bi tamit nekk ci wu tiis ba tax na ñëpp tamit ànd ak ñoom ci woowee tiis mu ñeenteelu soldat bi nga xamante ñàkk na bakkanam de Mali ak France jaaroo tuntaal bras de fer baa ngay wéy et gis nga ko les lions yi nga xamante ne ñu ngi commencé tamit di am xarxanam bu am solo ci Coupe d'Afrique bi. union de l'opposition bëgg noon ko nag ngeen imposer cohabitation ko defee dafa mel ni élèves yi tamit daal di reprendre cours yi maître la Diouf dem mi ngi doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi moom jàpp na ne daal euh, gis na daal defetu Ousmane Sonko moom mi nga xam ne mooy avocat bi et puis suite daal ci Sénégal colonel Malick Cissé moom it nekkoon homme politique mag fii ci Sénégal démb la wàcc liggéey. affluence bi jëm ci incident ak tamit technique ak lépp loo xamante wàllu ponctualité la terre bi di train express régional dafa mel ni kon mi ngi ci raay yu baax chiffre yi nag démb ñoom waa SETER daal dinañ koy génne 2141 trains commerciaux yoo xamante ne planifié na leen ci 13 euh, jours yoo xamante daw nañ di dem ak dikk. boo xoolee daal daanaka 96 la bu dee nag ponctualité maanaam respecte euh, bi ñu ko xayma la abonnement bi tamit ñoom daal rafetlu nañ comme ñoom waa SETER te boo saagunul danañ dem ba fa nga xamante moom mooy kon AIBD et puis tamit yi bàyyi na leen ñu noppalu dem mat Sénégal nag euh, ñu koy waajal seen Boubacar bi ay député bi moom dem na ndungi sin fekki euh, naataangoom ba et puis tamit France ak euh, waa Mali daal ñu ngi ci escalade boo xamante ni euh, kon libération mi ñuy xamal ne moom day porter plainte contre l'état bu Sénégal auxiliaire de police bi nee na moom ay préjudice yu anormal daal di subir ak yu spécial li ko waral nag muy sàkku état bi daal di ko fay cent millions de francs CFA en guise de réparation moom nag nee état bi daf ko defoon rek bouc émissaire ngir dalal étudiants yi fitna bañ a am ñu daal koy jiiñ na moom moo faat étudiant ba tax na kon bëgg na daal ñu dàmp ko lépp loo xamante daal tuumal ak i toor ñu teg ko ñu daal di koy saafara moom a gis lu mais et puis Abi Fall tamit gis nga ko moom moo faatoon naataangoom ci restaurant xewal gi fële ca Pikine moom it yóbbu nañ ko ndungu siin ngir assassinat ndax a bi daal la gars yi gën euh, topp et boo xoolee itam jàmbari démb république bi daal dina leen di delloo ndugal ci taxawaay bu am solo bi ñu taxaw bi moom moo bind ab lettre jagleel ko kon président de la république lettre ouverte la moom nee vos enfants vous parlent donc mel ni kon jëm rek ci crise bi nga xamante nemee ko doon ko ci éducation bi gone yi fan yi daanaka jàngun ñi ngi mbedd mi di sànni xeer di génn ñi ci privé bi ñoom dañoo bëgg député bi ay moom it su mandat de député démb kon delloo nañ ko fële ca kaso ba mu daal di fay fekki naataangoom ci wàllu passeport yeeg euh, euh, moom nag moom moom mi ngi am mbégte kon am solo yi nga xamante am nañ ko. les échos wax sànq ci yëmbal waa ji nga xam ne soxna si faat frère euh, paaka nag la ko jam paaka mburu moom nag dafa amoon jafe-jafe ak euh, soxna sa frère ba maanaam wujju peccoor gom ba mm. mu def lu ni mel muy lu yéeme soxna sa frère moom mooy njëkkeem donc mm. muy loo xamante ne daal dina ci ñëwaat et puis tamit gis nga ko mm. euh, lion yi tamit muy étalon yi dem war nañoo daje quart de finale demi final plutôt suba la fële nga xamante ni kon mooy ca Yaoundé. ba bés bi le jour. accrochage bi diggante kon MFDC ak euh, ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy armée bi santé judo ñi nga xamante ni xamee na leen ci wàllu médiation ñi ngi dox seen euh, tànku jàmm ngi rek ñu daal di juróom-ñaari otages yi nga xamante démb confirmé na ni ñu ngi dund wante ñu ngi ci loxol waa MFDC. las quotidien euh, ba léegi rek kon jëm ci expert yi borom xam-xam ci wàllu code électoral jàpp nañu daal il faut rek kon xëy na élection législative yi mën nañ koo toxalam déet Babacar Fall Bougra dégg moom gisee wul ni mel dañoo war a respecté calendrier électoral bi Mamadou Mansour Ciss moom jàpp nañu rek législative yi daal bu dee doon am ci wàllu juin foog rek kon li nga xamante mooy montant bi ñu fixé ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier nekk dégg nga monsieur le maire ah muy Babacar Diop Barthélémy Dias Khalifa Sall nekk ko wante moo nekkoon seen ginnaaw ba ci Saxapala Samb mi nekk kon ca point ak tamit euh, Seydina mi nga xamante ni kon moom la mujj a fal fële ca Yoff ak Bamba Fall bu ñu sukkandikoo journal bi. ñëw ci résultat gëm sa bopp am na cinq communes ak résultat yu baax ci élection locale yi daal force euh, au forceps da leen imposé wu ñoom ñi nga xamante ni kon Bougane Gueye Dany moo leen jiite woon et puis euh, Dansokho ak Sall dafa mel ni kon ñoom it devant le juge jëm kon ba léegi rek ci faux passeport yi ginnaaw kon biyaay bi ñu ko yóbboo ca Ndungu Siin et puis regret grand parti dafa mel ni moom ñoom ñu ñàkk lan euh, ma kii di Malick Gakou ak ñoom ndax lan am ci maire yu bëri te bon na ñu ngi woon ci biir wàllu wante investir lu bëri ba tax na am nañ ci yooyee regret. alors le témoin ak euh, tamit euh, Sénégal ba léegi rek di justifier résultat yi ba tax na kon fële ca Pikine tamit bëgg nañu jox leen commune ba ndax euh, Cheikh Dieng moo koy xëccoo ak Timbo mi ngi ne moom moo gagné élection législative président institution yi ñàkk seen i diwaan bokk na ci kon Idrissa Seck Moustapha Niass ak Aminata Mbengue Ndiaye. Mm, aywa bi mi ngi ci tourmente maanaam guddi gu bët setagul li mi ngi bëgg a enseignants yi ak tamit gouvernement bu Sénégal bëgg ko ñu daal di respecté li ngi di accords yi G7 QCMS SAEMS ak yëpp yoo xam ne ay syndicat la mu daal rek noppalu tuuti ndax rek coono bee xëy na dafa am lu lu moom mi nga xamante ni kon ah, bokk na kon ci équipe nationale bu Sénégal boola Touré kon ñëwaat na intégré équipe nationale ba nga xamante ni kon tous les lions sont testés négatifs c'est la bonne nouvelle kon jëm rek ci élection yi jëm kon ci match bi nga xamante ni war naa dox seen diggante suba ak ñii di waa Burkina Faso. stade pour jeexal. Sadio Mané moom dafa mel ni kon indispensable la mu ci Lions yi ndax rek taxawaay boo xamante ne am na ko meilleur buteur meilleur passeur su Cissé bi Aliou Cissé ñëwee ba léegi daal. Mm. Sadio Mané moom moo ci gën a ràññeeku bu ñu sukkandikoon ci moom. d'ailleurs tey sunu làmb ñëw yaa ngi ci fukk ak juróom-benneelu quotidien bi. Chérif ah. ñu lay jaajëfal bu baax euh, Malick Thiandoum ak ci bi ñu dellu si waat ci muy législative waaw ñi ngi koy euh, ruumandaat te ku nekk waroon nga xalaat ni ak élection yi ni mu demee rawatina euh, gox-goxaat yi euh, ñi féete ci wàllu nguur gi dinañu jéem a seet nu ñuy def ba daal di toxal élection yi ngir mën a defaruwaat mais li wér moo di ni mois de juin la ñu jàpp li nga xam ne moom moo di euh, législative yi respect di calendrier républicain mooy li nga xam ne moom la ñu war a njëkk a beneen bi ci des moo di lan moo di ni tey jii ñi nga xam ne ñoo féete ci kujje gi ñi ngi woote maanaam ngir ñu gën a booloo doon benn doon benn say ngir que législative yi bu ñu ci demee ñoom ñu ëpp Euh, ñu ëpp fa ay député ba imposer li ñu tuddee cohabitation beneen côté bi aussi ñu féete ci nguur gi gis nañu ni bu doon ay mbër la ñu damay wax ni dañoo def trois appuis donte ñoom ñoo gañee li ëpp ci gox-goxaat yi wala ci euh, wala wala ci euh, yenn mairie yi ville yu mag yi ñu perte loolu wane na ni. Mhm. dellu nañu ginnaaw bu baax a baax a baax. Mhm. te lii xeeñ mooy lan cohabitation te loolu li koy may opposition bi tey. Mhm. mooy ñu def benn say di yëkkateendoo di dóorandoo dem ci législative yi avec beaucoup d'intelligence conscience. beneen bi ci des aussi intérêt wu tey ñu fare ci euh, nguur gi mooy ñu pousse ko wala bokk ñu dem ci euh, couple législative yi ak présidentielles yi. Mm-hmm. te loolu yaakaar naa ni xeex la bu nga xam ne euh, ñii di kujje gi duñu leen ci bàyyi ndax bu fekkee ni da ngaa dóor nit ba mu nekk ci ñetti appui la ngay bëgg mooy daal di koy doggali mu nekk ñeenti appui maa mu dem teer. Mm-hmm. donc te tey fi mu nekk nii opposition bi am nañu taxawaay bu dëgër a dëgër a dëgër ngir yóbbu Sénégal ci une situation inédite muy cohabitation. réhabilitation. merci beaucoup Chérif euh, cohabitation boobu ak itam report législatif yi Chérif. bon cohabitation euh, am yombagul na parce que boo xoolee résultats yi nii mu demee quand même Benno Bokk Yaakaar ak nature euh, élection yi passé mënoo ko tëkkale ak ay législatives parce que boo xoolee même les listes parallèles li nga xamante ni. Mhm. au sein de la majorité la amoon. donc listes yooyu tax na kon mënoo ci basé wu ba ne kon lii cohabitation mën na ci am parce que législative beneen nature élection la bu bokkul te tam boo xam ci benn liste la dañ leen di investir ça beneen affaire la beneen bi nag mooy gars yi dañoo topp euphorie bi muy ci pouvoir bi ba ci opposition bi waxuñ également ci élection législative yi parce que janvier bi passé ministre de l' waroon na fixé hmm. montant déjà lépp loo xamante jëm na ci ngir ñu waajal élection yi am ci féeru weeru juin on espère que dina am parce que loolu tamit mooy calendrier républicain moom dañ ko war a hmm. parce que tamit am élection législative yi yii passé am na nun ci jàngoon bii pas dina am normalement parrainage war na am caution war na am ba pëcc xóot ci am pëcc xóot goo xamante maintenant nag opposition surtout waa wàllu gis nga seen sorti parce que ñoom it waroon nañoo bokk ci yeewi waa waa mais waa PDS tamit dañoo xëy gedd dem hmm. bi ñu xoolee ne amul résultat yu baax ñi ngi bëgg del si parce que appel du pied lañ def tey ñi ngi nii soxla nañ waa yeewi askan ji kaw ville bu ma ko doon xëccoo jàppoon ñàkk nañu ko mais euh, commission de recensement li ñu wax mooy Abdoulaye Timbo moo ko gagné donc mooy opposition bi tam des fois li mm-hmm. gis nañ ne am na reculade bu am solo boo xamante am na ko ci élection yi mm-hmm. te moo tax de bu organisé woon mën na am lu ko rawatina soit mu dem ci yeewi wala ñu xoolaat mais mm-hmm. day parti boo xamante ni bi li ko waral mooy daanaka amul bu doon batol ñu ne googu nag moom moo waral difficulté bi nga xam ne moo ko am mais mm. am nañ score yoo xamante ne leen buñ góorgóorloon Doudou Wade malgré que gis nga ko campagne bi defu ko na mbore mais gis nga ko il a de bons scores jiitu sax ñoo xamante ni quand mm. ñi ngi doon ci terrain bi wala donc ce qui veut dire que le PDS toujours là am na ay base mi ci yenn kii mm. Kébémer ñoo ko gagné malgré jafe-jafe boo ci mën a nemmeeku mais nag amul njiit Karim Wade mu nga toog fële mm-hmm. mm-hmm. euh, a léegi ñu dem euh, ci beneen euh, ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde